Aïcha Imam le secteur de l'agriculture doit peut-être être réformé pour que nous ayons accès à la souveraineté alimentaire comme nous ñu koy waxee mu nekk sax peut-être une début de solution euh, par rapport à euh, la cherté ou la réduction de la coût de vie de la vie. <laughs> à chaque fois dans mes du coût de la vie. je le fais exprès ma lay nettali nous bi pouvons gagné dañ nous ne warul woon am nous toog di développer ay thèmes yu deugal li ñu wax li ñu développer moy le sacre de Pastef diagnostic d'un peuple désabusé un peuple désabusé c'est-à-dire nit bëgguma jël exemple ci ak mais nit nax la de use c'est-à-dire l'agriculture. est-ce que le Sénégal dafa commencé ak wa Pastef Sénégal a plus de Euh, comment dire encore deux cent quarante mille hectares de terre mm arable terre boo xam ne mën nañ kaa bay deux cent quarante mille hectares de terre Sénégal am na soleil am na ndox mhm. xam nga bu ñu waxee politique agricole damay ànd ak buuba li mu wax léegi Macky Sall bi muy dem fan la bàyyi agri ak agriculture ku déggul les DAC domaine d'agriculture euh, de communauté kii communautaire kan moo ko déggul et puis on parle de développer l'agriculture, est ce que ça s'est fait d'une baguette baguette magique mm-hmm. c'est-à-dire nit ci wàllu politique dañu war a am rationalité how to do it c'est-à-dire je peux faire ça mais qu'est-ce nga kaa defee mm-hmm. wax nii rek en grande pompe dirais que ce matin dama na saan une vidéo mais dama xam ne xam-xam du ay il idée muy leeral mu Sénégal 70% de la population bi cette activité c'est l'agriculture mais regardez lu a que 10 de notre PIB qui vient de l'agriculture ça c'est pas normal 70 ce sont des agriculteurs mais il n'y a que 10 de notre PIB est-ce que au Sénégal il y a assez de moyens qui accompagner pour si si nous wax développement est-ce que tu nit une na de pourquoi les gens qui les pour venir dans les villes pourquoi il y a la le da ngay dem benn d'accord un américain beaucoup fait que ci toolam e, a e femme dañu e femme c'est-à-dire un fermier you know parce que non seulement il y a de l'espace il y a la commodité mais c'est-à-dire mon moom moom day am xaalis parce que dina bay dina am ay qui euh, djurgi mhm. ay nak affaire yooyu bétail pour moi, nit xam nga la gestion du pauvre la gestion du du pouvoir est l'ennemi mortel des populistes Digue bu est-ce que li nga wax mën ko def donc pour man li bu wax ñew fi fekk li fi def. Mhm. ñu continuer ko mais xamal ma problème ñom waxa wax ba problème.

tu as un projet. Donc ton projet n'a rien dit sur l'agriculture. Tu n'as aucune solution pour l'agriculture. Donc man euh, waxtaan bi je koy man parce que pour man mënuñu man man gëw man na parce que nga les semences armée boo koy contrôler mais non, la monsieur a mm-hmm. la douane elle est là Non, madame, nous sommes non le a dama toujours été dans la distribution des semences. mais waxal si kaw aan waxal si kaw mais fi mu toll ni ñoom xam nga dama koy wax le pastif est la manipulation le pastif est le mensonge le pastif est la violence bon pour moi, parce que c'est une idéologie moi, mensonge violence manipulation à mon avis nous allons avoir 5 cas de manipulation 5 cas de mensonge oui. le ministre là génnul fii barki démb kii wax na ko on a soldé les comptes et on a décaissé dégg ngeen français ñaari benn la l' argent a nga ñëw ne on a soldé tout pour man c'est-à-dire ñoom man de mënuñu ma naqaral parce que man gëwuma leen tànn ma leen mais ñi leen tànn laa wax ñi leen tànn nañ màtt seen loxo xanaa lenn maanaam seen yaram tàng ñu ne maa ngi fii xanaa ñuy def loolu maanaam affaire yi metti mais ñu rusa wax mi ngi metti di wax la contraire <laughs> imaam dinañ dellu si waat ci yow Fatim <laughs> imaam daal mu ngi ruube ana ah te <laughs> ci la ñu ñëw sax mbay mi imaam fi mu daanelee rek foofu laa yëkkatee ima ana alors nee na su may jógee wax léegi VAR TV bi mu wax loolu dina doy waar parce télé boo xam ne yii da ngay rappel rek dafay xaw a compliqué mais li nga wax léegi que ni Pastef lépp lu ñu fi wax ak yenn yi ñuy jëlax yooyu noonu yëpp dara du ciy jàll ba nga joxe exemple livre solution bi ñun bëggoon na ñoo xam ba xam ndax liir nga livre wala ñenn liir nañ ko. parce que livre de mais nag euh, man je proposais que nit yi lire ko au moins pour ñu mën a xam contenu bi nga mën a après euh, jéem a xool ba xam ndax la ñu waxoon ci livre bi ak li nga ci liir yow ak li ñuy teg ci mbedd mi euh, nduróo na quoi léegi beneen bi ci des Pastef tey. Euh, su ñu ñëwee tey ba ñu mën leen a fal. Mhm. ci nga ne ñi ñëpp comme ñenn ñu bari niñ koy waxee ci seen ay wax ak seen ay jëf. Mhm. ba nit ñi fal leen ci tey 54 pour cent des mhm. Sénégalais. responsabilité bi c'est partagé bu wax na léegi lu am solo et c'est très important mooy que euh, nit di nga dem ba toll foo xamante ne nii. dootoo bëggati dara ci li nga nekk bu koo tasenteel koo xamante ne mën na laa jéem a xaw ma naka lañ koy wax xaw la xettali rek sa yaakaar nga fay teg ba dem fa. waaw léegi nag de comme wax naa léegi assumons dinañ assumer. Mm-hmm. même suy metti dañ koy assumer. Mm-hmm. waaye bu boobaa tam yërmande gi ñuy am ci sénégalais yi la ñuy gën a yërëm li tax ñu leen di yërëm. Mm-hmm. bu ñu defee euh, bu ñu bu ñu bu ñu defee toox wala mal laa ko mën a wax ba fal leen ñoom aussi. defuñu ko ndax. dañu ko bëgg benn côté. du nag à 100% benn côté. peut-être defuñu ko ñu dañu ko bëgg moo tax ñu koy def te loolu li ko àndee tey ñi nga xamante ne ñoo ngi ci républicain yi comme euh, xaw ma yow fa nga bokk waa fa nga war a bokk ak ñeneen <coughs> ñi nga xamante ne ñoo fi jógee tey ñoom it dañ ci am ngandum maamu part de responsabilité parce que yow li ngay jël tey sa décision ber personnelle. jël sa engagement décider ne man damay défendre lii di ko wax di ko jëfe ñëpp di ko def nga bokk see ñeneen ñoo xamante ne la même chose dañuy def tey am na groupe républicain comme ni nga ko waxee am mouvement am leneen ak leneen ñoo xamante ni jeunes ñoo fa ay jeunes ñoo fa dajale des jeune sénégalais. Mm. xam ni ki ñoom fii ñu jàpp leewar na ne même bu fekkee ni ki foofa mooy dëgg tamit mais li nekkoon en face ñoom. du luy dëgg te gënul ci Sénégal ñu ngi ko doon xeex mais ña nga xam ne ñoo nekkoon ci kaw tey waroon leen jàppale ci xeex bi wane yoon bi nga xamante ne ñoom à chaque fois bu ñu génnee am nañ kay ku leen xàllal ba ñu mën a génn amul woon. kon tey mën nañu ne état bi fi jógee am nañ responsabilité ci loolu parce que tey fii problème ba muy gën a am coow li ba muy bën a am les activistes républicains comme ñi ngi koy tuddee noonu seen panel di ngeen bokk kese lañ doon gis ñuy génn où sont boobu où sont les DG les quelques ministres yi nga doon am ñoo daan génn mm-hmm. peut ñoo ñu mën nañ la mais ministre composition gouvernement bi ñaata lañu boo ci génnee ay deux trois personnes yuy génn de temps en temps révolté wu ba ñu xamee leen ni ki ñooñu kat ay jàmbaar lañ ragalul lu ñuy def mais ñi si des ñëpp dañoo dawoon làqatu waaf. merci Fatou bàyyi leen yéen ñooñu kase. Mhm. léegi ñooñu noonu kase ñu bàyyi leen ñu tege tey ci mbedd mi ak ñeneen ñeneen ñi nga xamante ne tey ay jeunes lañ te génnoon nañ. te amaana xaaruñu ci woon dara joxuñu leen lu ko jar mais dañ ko def parce bëgg-bëgg. xam ne kat ñii li ñuy wax tey bu ñu tëddee ñoom dinañ ñoom dañuy xalaat parce que bu ñu leen dégloo ñu wax bu subaa ñu dégluwaat leen dinañ mën a def seen analyse personnelle ba war koo mën a génnee tey teg ko ne ñii si lu ñu nekk du loolu. Mhm. mais bu fekkoon ni ki tey jii ñoom ña nga xam ne ñoo jiite woon réew mi tegoon nekkoon fi. ñoo doon génn. di ko mhm. teg parce que quoi qu'on dise Pastef seen armée bi lu tax mu dëgër c'est parce que ñi leen jiite dañ koo ñeme. Mhm. te ñeme ko assumer. léegi bu ñu dee dëgg rek la ñuy wax te yàlla tax Ousmane lu ñu ko fi waxul moom it ci réew mi amul. ci yim def ak yëpp yëpp yëpp. Mm. ñu ko koy génneel. Mm. pourtant am na njaboot dalay naqari man sama papa wala sama yaay def naka su dul noonu mu wax lu amul man daf may naqari déjà suñ ko waxee mën na ma bañ duma ko weddi quand même mais dina ma naqari xam nga lu dul dëgg moom duma sa doon dëgg bu buñ la ko waxee mën naa naqari. même bu dee dëgg la lañ la wax waaye naqari na la parce que sa kilifa lañ ko moom tam de la même manière même bu defee lu jaarul yoon deful lu jaar yoon euh, bu waxee lu jaarul yoon dañ ko kay rappelé ñëpp dañuy xam ne kii li mu def kat moo ko def moo tax ñu wax ko ko. Mm-hmm. waaye doom ba mu jur. li ñuy wax ne doom bu la boo ko juree sa yaay bu bonee su baaxee moo la jur di nga ko woo yedd ko mais booy dégg lu bon ci moom dina la naqari même boo xamee ni moo ko def loolu noonu yëpp est-ce que tere na assuré dafa tax Ousmane Sonko waaf waaful. daf ko assumer ñeme génn de la même manière moom muy assumer yooyu noonu yëpp di génn bu nekkoon état bi fi nekkoon ñi leen jiite woon assumé woon nañ ko am na yu bari mënoon naa éviter kii mi ngi koy wax élection yi ñan lañ gisoon ci ci ci benn Bokk Yaakaar la wax de manière général mhm. mais bi campagne jotee ñan ñoo génn ba au dernier moment loolu yëpp def ci jouer loolu yëpp daf ci jouer Sénégal moo xamante ne dama koy wax di ko faral di wax dañuy dem di xaw a doyal ci yow bu ñu demee ba doyal ci yow képp kuñ leen àndil dañuy jël mhm. bu ñu de bu ñu demee ba nga xamante ne sës nañ parce que nag nañu waxante dëgg daf ci amoon ay ministre yoo xamante dañu arrogant mhm. bëgguñu jàppale benn jeune tey dañ koy ñun bu ñu xamulee les activistes républicains xam leen nii nii nii mais dañuy seetaan seeni page am na si ñoo xam ne dañuy dem ba dañuy mer tey génn mais am amaana bu ñu demaatee dellu si seen bind rek lañ koy gis. bëgg-bëgg moo leen delloo si waat ak gëm li ñuy def te bañ si xaar dara mais bu doon jàppale dong la ñuy xaar amaana ñu bari duñ fa nekk tey. parce que ñi leen war a jàppale jàppale c'était tout le contraire ak les gens qui étaient en face te ñu nekk tey au pouvoir. Mm-hmm. ak lu mu mën di doon quoi qu'on puisse dire ils étaient solidaires ba ci kaw ba ci souf mhm. El malik lepp lu amone dañ koy gis muy bind. ñeneen nak ñeneen la même chose pour pour pour bañ cité ñeneen ñenn ñi rek mais ñom niñ ko doon défé buñ ko defee xeex mom xeex la rek da ngeen di dem xeex ku mën sa morom duma la. légui nak liñuy ñuy nangu man lima gëm te nangu ko moy dañu doon xeex ñële def nañ ci le moyen nécessaire mhm. ñeneen ñañ nekkaloon en face. xew na luñu raté sénégalais ñoo bëgg tan ñom malgré li fi am yépp lañu wax yépp lañu gis yépp ñom ñu bëgg na ñi rek lañu bëgg encore une fois assumons té nak ñu muñ dëgg la nak day metti waye assumer bi tamit ak limi andal assumer ça veut pas dire que buñu gisé luñu wara wax duñ ko wax parce que ñi nga xamante na ñooy wax nak té ñom ñu ñu ñu décider né ñom dañuy wax buñu gisé lu di yoon dañ koy wax buñu gisé luñu wara wax dañ koy wax

bi sauvage yi c'est ces ces anarchistes ces rebelles biñ ñu di yak dëkk bi da nga on n'a pas vu une riposte de la part de la l'APR mais la riposte, donc, ça ne devait venir que de l'APR. Non, il m'emballe une, oui. une, une, seconde, voilà 30 secondes. Oui. De M. Dougal, malgré tout, mm -hmm. les Sénégalais, mhm. j'ai terminé avec, mm -hmm. pour one l'année, la femme a l'unbaré. Nous sommes 18 millions de Sénégalais. Mhm. Euh, ñëpp bokk ci mhm. tey yëpp am na su mën naa ne bu ñuy wax ci riposte yi mën nañ ne même yéen ñii di riposte du yéen rek sénégalais mais da ngeen jël engagement ak responsabilité mhm. bëgg Sénégal bi mhm. ngeen ngeen ko léegi la li ma jël exemple ci APR mhm. li nga jël exemple li Pastef bi may wax waxu Pastef ak armée pris l'exemple ci APR mais je parle de Sénégal manière générale man sama gis-gis ci malgré li fi am yëpp li ñu dégg ba ñi di créer xalaat créer VAR TV te ñëpp di ci di ak nopp la avec ah 54 pour cent mhm. loolu lan <laughs> ok xam nga lan moo tax ma ma ma tontu la lool mhm. da nga ne Pastef engagement ils étaient ils étaient solidaires mhm. man dama gëm ni amul benn Sénégalais laa wax bu nekk nit taxaw croiser les bras bàyyi Pastef di yàq suñu dëkk. Macky Sall dem na Fatick. ministre yëpp wër ko conseil interministériel à Fatick. mu comment se fait-il avec tout ce que se fait dans ce pays. pour laisser des médias sataniques tenir mon image il l'a dit oui ou non. quand il le disait il s'adressait à ses ministres mais de manière détournée au Sénégalais. man dama né man suñu kër wala bok, samay famille suñu mbok Manam nit Sénégalais bo xamné nit njaay nga la wax mais attends défendre le Sénégal c'est pour c'est pour Macky Sall américains ils dañuy wax affaire America first Madame nit au-delà des partis politiques mais nous sommes des Sénégalais man mun des membres APR donc li nga wax pour moi, ça manque de pertinence du simple fait que Sénégal du APR da nga la réponse on l'a pas senti parce que le peuple a baissé les bras. Mais c'est ce que j'ai dit non, laisse-moi terminer quand vous me coupez. <laughs> non, ce serait beaucoup plus compréhensible. Mais quand tu dis que, mais, parce que Sénégalais, nous, beaucoup de gens de terminé. Mais l'acheter pour moi, moi, je suis mais la nit ñi pas Sénégal ne pas il une poignée de personnes terroriste di le Sénégal sénégalais baissé les bras Mané c'est mo qui indi moo tax le sacre de Pastef diagnostic d'un peuple désabusé mais les destinées du Sénégal entre les mains de Pastef ça augure de bon quand même donc le ministère, pour moi, ñom bu que Macky Sall falé et puis il day day une une brèche xam nga ñepp a mer ci affaire amnistie bi mais dañuy wax la trahison c'est l'arme des lâches la trahison c'est l'arme des lâches Macky Sall si la senti que dans son entourage loolu feeñ na sa wax parce que ministre yooyu tey comme ni nga ko waxee ñaata ministre ñaata DG bu ñu génne woon xaalis fay ay boy maanaam jóg jàkk xanaa moom Macky Sall pour man li mu ñàkk def troisième mandat man man loolu ba léegi man mënu ma ko supporter Macky Sall devait se présenter en 2024 oui loolu la gëm te loolu li ko ñàkk li ko tax amul mooy li nga wax parce que benn instant mais buñ la waxee ne am nañu bokkoon APR di ko suxlu manam ku bokk APR di wax di wax communiquer sur le troisième mandat waru ko def waru ko def di fay ay nit ay journalistes yu véreux bu la waxee na ñom ki leen doon fal pour ki leen doon fay pour ñi attaque Macky Sall ministre Macky Sall doo ko gëm donc là damay ànd ak yow ci côté bobu mais dire que. non boo imam bobu moom. c'est bobu boo ko dégloo rek dañ siy ànd. Ah, d'accord 18 millions de sénégalais comme dañu seetaan ñu bëgg. ñu gis ne am fi ñu bëgg. voilà ah, d'accord dañoo seetaan il faut ñu évacuer waaw. il faut ñu évacuer cette question là parce que faaw uh-huh. quand Macky euh, s'adressait au au au ministre. oui. Mm-hmm. il parlait aux acteurs politiques. yu mm-hmm. bokk ci kaam. Mm-hmm. tey bu ñu bu làmb xewee. dañuy dem danañ seetaan. danañu observateur la ñuy doon mais nous déglu comme analyse ñi nga xamante ni c'est les acteurs de la lutte c'est-à-dire que foofu laay interpellé Ndiaye sa Ndiaye mm. euh, euh, bi bi Pastef faloo mm. lañ ne nañ def lii bi Pastef faloo nañ def série de de ah. d'émission bi c'est comme ça que tu l'as compris non non non laisse-moi terminer s'il te plaît <laughs> bi Pastef faloo en tout cas ce que ce que ce que j'allais dire mm-hmm. Moi, chapeau puisque vous vous êtes réveillé. Mhm. organisé wu ba pare am ci engagement bi nga xamante